لا يكفيني العدال يا الله سفي بقى حبيب لبيك يا الله بسم الله يكفيني العدال يا الله سفي بقى ndax ñëw ci yow nga ne leen ba lañ cee def dara faaw nga laaj laaj ko ci ndigal mu jox lañ ci ndigal ba noppi nag euh, soññee ci ngir xam le ne lépp yu suut wane Serigne Touba wane liggéeyu Serigne Touba wane li Serigne Touba bàyyi wa jaala kalimatan baaqiyatan fi aqibihi ndax bu Cheikh Mouhamadou Moustapha farluutoon kon Serigne bi di ñibbi si Touba nee naa bu ma ko ñaanee digg ma yoon wi agsi tey di téeméeri at wane na ne Serigne Touba noppi na ci yoon wi kon nag loolu wane li fi jaar ci diggante bi lépp ci mboolem kooku fi ma sa wutu tàmbalee ci cheikh Mouhamadou Fadil ba ci cheikh Abdoul Ahad cheikh Abdoul Khadir ba ci sëriñ Saliou ba ci cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci cheikh Sidi Mokhtar ba agsi ci moom mii nga xam ne mooy cheikh Mouhamadou taxa yàlla suñu borom dolli dolli ay gërëm dolli kattanam ba mu yàgg a taxaw liggéey Serigne Touba bi mu wax ne biñ ko ko yëgalee. moom daa wax ne lim ciy soññee mooy ndeyam xam na li ci war lépp moom la waroon ba soññoo ne du ko bokk kenn ndax jàpp na ne positif am diggam ak Sëriñ ñoom sakkuñ ko laajuñ ko ko waaye moom ci boppam moo wax ne wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun ndegam moo fi nekkee Sëriñ jàpp na ne moo war a moo war a gàddu lépp def ko def ko addi Sëriñ moo taxit mu yëkkati. téeméeri million ne da ko bëgg def ci bis bi ngir li koy dundale li koy waaje lépp jàpp na ne ku ko ci fekk fekk si ko ca waaye loolu moom addiye boppam lu joxoon diggam ak Sëriñ Tuubaa la ndax lii xam na ne yow da yaa ne ci kanam jóg di ko taxaw waaye yoon mburu yëpp ko bokk yoon yëpp nga koy defal yoon yëpp nga koy defal nag te moo fi Sëriñ Tuubaa kon jàpp na lépp moom la kon nag mi ngi jot laa rek cantam ci yow ak ngërëmam ci yow ak ci njaboot gépp di ñaan yow itam nga yàgg wutu sa waajur tedd wa ndax xam ne cër bi nga ko sédd ak fi nga ko teg ak seen diggante ni mu demee ak doyloo gi am ci yow ak yaakaar gi am ci yow ba am na bis boo xam ne wax na ci làmb ñëw ne ma suñu Ahmadi eh, ngatt moom suñ tubaale ci man loolu boobu maa moom loolu xam naa fi mu la teg kon ñu ngi sant bu baax di jeexal foofu kàddu yi di ñaan bis bi itam muy bis boo xam ne dana jëriñ adduna sépp ndax adduna sépp mën nañ ci jëriñu ndax lu am ci yoon wi rek ci téeméeri at yi amee waxtaane nag eh, li sëriñ bi def rawatina njaareem ji nga xam ne sëriñ Tuubaa yàgg na fa ak liñ ci war def lépp xam naa ñoom danañ ko leer ci yen jotaay yu gën a yaatu waaye sëriñ bi daal mi ngi lay sant bu baax di ko di ko tàbbi tàbbi ci biir liggéey bi di ko defaaleel mboolem ko yaakaar sëriñ Tuubaa itam ndax hal adullukum alaa tijaaratin tunjiikum min azaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum moo tax mu jëli dóor ko ci biir te uh, suñu kilifa gu tedd gi suñu Saaliw daana wax ne bokk na ci njëriñul addiya nee na suñu Tuubaa daa wax ne bokk na ci njëriñul addiya dana fekk fu mu defal fekk fu dara nekk mu baril ko waaye daan dana fekk fu lu nekk mu barkeel ko kon nag ci addiya jooju la ko tàmbale. asalaamaaleykum taala wa barakaatu. asalaamaaleykum sëñ Bassirou maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal eh, ngay ndawal sëñ bi mu yebal nga ñëw di teraanga ji di sant di ci lëg ci gërëm su bu rek li li moom xër xërëm la waaye man naa yées lii te ñu gërëm ko waaye nag yëf yi nga xam ne Euh, dajale alal tax ñu def ko euh, loolu lu ñu ci def rek réer na ci noonu dëgg la nag yëf yi dëgg la noonu ñëpp ko bokk yëf sëñ Tuubaa ginnaaw gi kon sosoon doo xulos di sosoo moo tax jàpp téeméeraat yi euh, buñ ci màggal fàttaliku si bu jëloon def it ndigalu sëñ bi leen ci am doo ko def mu fi sëñ Touba kilifa yoonu murit lu waay di def ci biir yoonu murit moo ko war a jiite kon nag léegi lii nga xam ne moom lañ koy defal lu ci def nag sant nañ ci seentu woon lii moo tax bari na fi noonu lool lool yow nañ ko ci gërëm di ko sant. di ñaan muy nga def lu mel nii te daje see ngërëmal sëñ Tuubaa mi tax muy jëf xam na ni mu jàppee jàpp ko yoonu murid yëpp muy xër gum xër ci sëñ Tuubaa lépp lu bokk ci moom fonk na ko jàpp na ko daanaka ñëpp la kon li nga wax it xëy na dafa baax rek waaye man wax dëgg yàlla lu ko def li koy jàppee wax dëgg yàlla xamoo ko waaye nag moom ak baaxam xëy na moo seetlu xam ni tax mu wax ko daal waaye nag ne ko moom ko ci gërëm di ko sant te ñaan loolu ma jàpp ci moom yàlla dëggal ko waaw jërëjëf jërëjëf